alors dafa am benn xale bu jigéen boo xamante ne ñu koy wax ma ni Samb képp koo xamante ne patriote nga sax war nga génn soutenir ko def commentaire bu positif parce que commentaire yu négatif yi moom laa gën a gis te gis nga nit kenn du ko topp ba sës nit kenn du ko déstabiliser gis nga nit ku ne ni la yàlla bindee dañ cee war a fier te dama gis ne daf cee fier dafa am yenn xale góor yoo xamante ne commentaire yu ëpp xale góor yi lay gis ñu koy def am yenn commentaire xale yoo xam ne damaa yaakaar ne. comme ni ma koy waxee rek du ngeen ay nit tax ngeen ba képp koo xam ne pataa fees na yaram yéen góor fees na yaramam yéen góor ñi képp koo xam ne dafa am taat bu tàpp tax ngeen ba mu fees taatam pour lan nit dangay ngay te man ni mu nekk noonu man je suis fier d'elle barke yonent bi problème bi lan la mami gis nga noonu nga mel noonu noonu la la yàlla bindee te nit ci fier yi na gën a yokk barke alxuraan bu benn góor tax ngay naan Euh, yoo xamante di n'importe quoi di indi sa bopp santé am na si ñoo xam ne ñu ngi naan waaw résimal pour lan dafa am jigéen dafa am góor ñoo xam ne dañoo baadoola dañoo baadoola da nature am na góor ñoo xamante tekkiwuñ dara démb ak tey booy liggéey sa salaire lañ soxla gis nga góor bu la bëggee xoolul nga pataa xoolul nga sew xoolul nga gàtt xoolul nga ñool non non non non gis nga loolu dafa war a jeex ci ñun jigéen ñi góor ñi nga xam ne ñu ngi torturer soi-disant non dafa pataa dafa gàtt tay fii nana ni dugg na fee génn na fee et alors yow boo ko takkee mu am yaram ah mais mais mais mais avant nga koy takk gis nga ne am na yaram kon problème bi lan la kaa bi lan la ci réew mi Mamy Samb xoolal ñun ñu ngi lay soutenir ni nga mel noonu reste comme tu es tout es toute belle toute mignonne tabaar fakal la yenn góor ñi tax ngeen ba jigéen ñëpp fees seen yaram yi problème bi lan la problème bi lan la jigéen bu dee ngi dem di defi chirurgie di rattrapé wu loo xam ne mënu ko woon a soo sa gars yi di ko saboté barke alxuraan kon cas bi lan la mami reste comme ci yàgg a bégal nag Sénégal ak am jom am la am fayda tabaar fakkal la góor su la bëggee dala la takk te du xool sa pataaw yi du xool dara ci